jaa jëf jaa jëf mbokki ñaari waxtu jot na sëkk fii ci fa TV bi simila ci xibaar tisbaar gi da ci gën a fës am yéenay faram-fàcce ko falaat njiital réew Macky Sall ci élection présidentielle yi di ñëw doon lu yitteel waa alliance démocratique am ndaje nag mu yaatu moom la ñu woote woon ci Jidda Caare kaw ci Pikine daal di dal ci kaw leneen ci kilifa yi ngànk coalition Benno Bokk Yaakaar yi ñu ne dañoo sis dañoo boof ci kuréel gi ne ko duñ ci xajal kenn muy loo xam ne ni buñ ci jëlul ay matukaay mën na am mën naa jural ab mbetteel ci jiital réew Macky Sall jëm ci élection présidentielle yi di ñëw ci biir xibaar yi daa ngeen ciy dégg leeral yi nga xam ne ni moom lañ ci indi professeur Issa Sall mi njiital PUR ma ngay wéyal tànk nemmeeku yi mu amal ci mim réew démb ci dibéer ji ma nga nekke woon fële ci diwaanu Ndar profité na si daal di dal ci loi parrainage bi mu ne dafa mujjee soppaliku doon ab pataas bu tàng jër ci loxol nguur gi ci biir xibaar tam da ngeen ciy dégg leeral yi nga xam ne ni moom la ci indi donte le woote nañu ko ba noppi waaye waaye opposition bi te jii la ñu gën a taxaw ngir jële fii loi parrainage boobule amal ci mbedd Ndakaaru yi ñoom opposition bi ña nga nekkee woon démb fële ci diwaanu Touba ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leer yi nga xam ne ni moom lañ ci indi bon mbokki li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi sax mu dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum bisimillah ci xibaar yi dañu koy ubbeek wàllu politique donte le woote nañu ko ba noppi waaye opposition bi tey jii lañu gën a taxaw ngir jëlee fi loi parrainage bile gannaaw nag doxum ñaxte gi ñu jot amal ci mbedd Ndakaar yu ni ki fukki fa ak ñett ci weeru sulet yu ñu génn ñoom opposition bi ñu nga woon démb fële ci diwaanu Touba jot nañoo gis yeeg xalif général des Mourides di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké Sakho ci moom mu wax ak njiitaru Macky Sall delloosiwaat ko lu ko mooy kat élection présidentielle yi di ñëw Sénégal mën na fee jaare tàbbi ci ab guddi te loolu yi ñaanuñu ko yàlla Mamadou Diop Decroix ma wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Mbourou Makhtar Sarr. nga xam ne moo indi nag ci sëriñ bi euh, njàqare moo nu indi dañu ko xamal ne ko euh, nit ki bu demee seeti doktor da ko war maanaam mënoo ñàkk a nelaw ci guddi gi ndax bopp buy metti xëy dem di seeti docteur bi ne ko sama tànkay metti da koy wax li ci ne wax nañu ko nag li ci ne nee nañu ko woote bi seetlu nañu ne réewi Afrique yi li ci ëpp solo ñaare ci ay rëng-rëng li koy indi mooy woote euh, nun nag bu nu sañoon Sénégal ñaar fukki at ak lu topp ñi ngi wote wote nañu fi juróom-ñeenti wote yoo xam ne suñu wotee ba jant so bu bët setee ñëpp doxi seeni soxla ah gis nañu ne nag ponk yooyee ak sart yooyee ñu tëraloon ba tax saa yi ñu wotee kenn du ko contesté Abdou juuf ba ko Ablaat gagné da ko woo gër euh, sargal ko euh, dem yoonam Ablaat ba ko Macky Sall gagné da ko woo sargal ko dem yoonam ndax ponk yi ak sart yi ñu tëraloon ñëpp dañ cee mànkoo woon ah, kii fi toog nag moom sart yooyee ak ponk yooyee fas na koo yéene sempi benn par benn fas na ko yéeni dajji benn par benn waaw lii nga xam ne tëral na ko wax nañ ko euh, euh, euh, xalifa bi aussi mooy mbirum parrainage bi ndayale bi bàyyale bi gis nañu ne daal loolu yëpp am dara dara dara dëppoowu ci ak loo xam ne lii nun ànd nañu kon nag dañu wax ne jaaduwut ñu organiser élection ci ponk ak i sart yoo xam ne opposition bi ànd ci na daal dégg nañu bu baax a baax ñaanal nañu itam te ñaanal na it senegal ñaanal na réew mi ndax nun ñëpp jàmm nañu bëgg ci réew mi bu ngeen gisee nuy dox lii di ci sonn guddeeg bëccëg mooy danoo bëgg réew mi sax ci jàmm jàmm nag li koy indi mooy maanaam li koy suuxat nga di ko def waaye bu fekkente ne da ngaa war a suuxat ndox pour jàmm jebbi nga jër lu dul ndox di ko suuxate jàmm du jebbi fépp fu kilifa diina nekk dina ñu fa dem ndax lii xew dafa nar a indi musiba ci réew mi te bëgguñu ko kon ku ne ku nu war a waxal wax ak yow pour que ñoom ñëpp itam kenn ku te la cay sa waru nga def ko ci. professeur Issa Sall mi njiital PUR ma ngay wéyal tànk nemmeeku yi muy amal ci mim réew démb nag ci dibéer ji ma nga nekk woon li nga xam ne ni moom moo dee ca diwaanu Ndar foofu sax profité na si daal di daal ci loi parrainage bi mu ne dafa mujjee soppaliku doon ab pataas bu tàng jër ci loxol nguur gi professeur Issa Sall Gabriel Barbier coow li moom ba ilaa abat du fi jóge parce que dafa nekk mbiru cuune ñoom dañu def parrainage bi pour am ñoo xam ne bugguñu ñu dem ci élection yi mais ba ñu koy def sax xalaatuñu nan la ñuy fexe ba nit ñi jëmmal parenage bi ñoom dañu profité rek def loi loi bi nag mu nekk lu saf-sàpp ci ñoom parce que loi bi traîné na assemblée pendant juróomi weer léegi nag xool nañu ba xam ne ñoom mu ñu vérifier signature ñu ngi commencé daw nag di wax ne dafa am lu ñuy wax discriminant loo xam ne kenn xamu ko dañ ko nëbb amul lu ñu xamul lépp la ñu xam ci carte d'identité bi amul dara lu ñu xamul ñoom ñoom ñoo leen ko gën a xam ne conseil constitutionnel nag ministre bi nga xam ne moo yore loolu te moo défendre loi ba kat ba fexe ba nit ñi voté ko d'ailleurs ba muy défendre loi bi sax document bi muy jox daf ñu ko jox jotaguñ ko lire sax moo amandé ko juróom-ñaari yoon yow yaa ngi jox nit ay document jotaguñu lire ah, bi kat baaxul juum juum naa ci juróom-ñaari yoon ci fukki page ak ñaar am na juróom-ñaari page yoo xam ne dama bëgg ñu corriger ko alors ñu dem ba ci biir mu seet ne euh, signature yi kon mënu ko vérifier mu ne damay jël benn discriminant boo xam ne bu ñu demee conseil constitutionnel moom la donc patate chaude bi moom mu ngi koy file conseil constitutionnel mais conseil constitutionnel la juróom-ñaari juge yoo xam ne léeg-léeg boo leen saisir on est incompétent nan la ñuy amee capacité ñoom vérifier soixante-dix mille signatures hein si nous mille signatures je veux Si nous le trouvons avec euh, 10 candidats, mais il y aura 700 000 signatures à vérifier en, en un laps de temps. loolu ñooñu fan lañ koy mune moo tax ñu ngi naan discriminant discriminant loolu lan mooy discriminant nañu bàyyi tappale yi. falaat njiital réew mi Macky Sall ci élection présidentielle yi di ñëw doon lu yitteel waa alliance démocratique pour une Afrique émergente joo leen ab ndaje mu yaatu moom dañu woote woon te jidda caare ko ci Pikine. Euh, daal di nag dal ci kaw lenn ci responsable yi ngànk coalition Benno Bokk Yaakaar yi ñu ne dañoo siis dañoo boof ci kuréel gi lank ni kon duñu xajal kenn muy loo xam ne nii bu ñu ci teeltu jëkk mën na ab njeexital jëm ci élection présidentielle yi di ñëw rawatina ci kii di njiital réew mi dañuy dem ca Pikine fekk fa Théodore Semedo. kuréel politique bu ñuy oowee alliance démocratique pour une Afrique émergente joow leen moom de mu ngi ñaawlu bu baax doxalinu yenn responsable yu benn bokk yaakaar moom ñu jàpp na sax dañoo siis si ni ñuy doxalee ngir waajal élection yi nga xam ne ñoom dañoo bugg faraat njiitu réew bi Macky Sall. ku mel ne man tey jii bankat bankat man xajoo ma siis euh, xajoo ma soxor li ma xajoo mooy xajoo ma xat mais li ma xajoo mooy yaatu ubbi xol yi yaatal ndax nag politique yaatal la politique yokkal yokkal la ndax tey jii ñi fi teew ñëpp boo ne woon kii nii la mel na dem kee nee la mel noo dem boo moytul di nga seppi ba doo dese ñaari nit boo moytul sax sa bopp ngay mujj seppi ñëpp jeex donc kenn ku ne am na lu mel loolu amul solo ci politique politique dañuy compter ay xob xob yi nag ay nit ñoo ko yor naxante la nit ñi man li ma jàpp te ma jàpp ni mooy yoon mooy benn Bokk Yaakaar bu ñu xewlee ku ci xewle nag ku nekk xam ne Macky Sall moo xewle nga ñëw taxaw ca na nga ca mu daal di rafet waaye nag bu ñu ko bëggee jàpp affaire siis aada ji xam ngeen ne géej goo xamante ni kenn mënu koo téye. bu ñu sukkandikoo ci njiit parti boobu jaraaf sow faree ci nguur gi doon amal benn ndaje bu mag si diwaanu jidda caaray kaw nee na tey ñii faree ci nguur gi dañoo waroon boole seen doole ubbeeku ngir mën a falaat seen candidat. waaye nag ce n'est pas dans la division ce n'est pas dans la médiocrité ce n'est pas dans l'hypocrisie que war a yaatal ubbi xol yi kenn ku nekk jàpp fàtte sa bopp nañu fàtte suñu bopp parce que boo jàppee ni lii kat soo demee kooku day réussir nga ne naa toog keneen def noonu keneen def noonu 2019 Macky day daanu au premier tour ñun nag yéene ko ko la ñu war danañ ko def ku ñu invité programme danañ dem ñun nag ku ñu invité bu wuñ la gis naa fi ay mobilisation yoo xamante ni ñi ko ñi ko def sàll lañ sant ba ba carré wàccee ba nit ñi ba carré taxawee avant ñuy wàcc la nit ñi duggaat ci carré dem ndax mbubb lañ doon lewal ñun defuñu ay militant lañ yor ñoo xam ne dañ ñoo gëm ànd ak ñun te yàlla rek tax. ndax xamuñu amu xam ngeen ni bu baax ni amuñu lu ñu lekk ñii dañoo ànd ak ndax yàlla rek ndax gëm-gëm ndax gëm Sénégal ndax xam ni Sénégal kat bu ñu jàppee nekk benn te am conviction incha allah mën nañoo réussir à redresser le Sénégal. njiitu parti alliance démocratique pour une Afrique émergente joow leen. jeexal na ay kàddoom di xam ne ne ba tey fas yéene def wéyal tournéem ngir di gindi askan bi si luy fi njiitu réew bi liggéey ngir mun mu amaat ñaareel mandat ki na ko yéen fi si diwaan jidda caare kaw Théodore Semido pour Walfadjri léegi moom wér na Cheikh Hadjibou Soumaré samp ni dëndam fas yéene bokk ci mbër yi xëccoo ngi jotee ci boppi réew mi ci élection présidentielle yi di ñëw démb la ko xamle ci am ndaje mu yaatu mu woote woon fële ci Grand Théâtre ndaje moomee sax doonoon occasion ci moom mu daal di indi ay leer jëmale ko ci plan PD plan BPDS bi ñu koy waxal moom jëwriñu jëkk jógoon ci nguuru Abdoulaye Wade ne du plan B benn parti politique ndaje moomee Abdou Khoudoss Diallo Massila Seck ñoom lañ fa yabaloon. Cheikh Hadjibou Soumaré daan fësal mbébétam ci bii la jogante ñu dogmal atum moom mi la di xamle dana nekk candidat laaj doon laam moom moo waroon nekk plan B bu parti démocratique sénégalais moom mi ci tontu. xamoon ndax may plan B wu PDS. plan xaw ma mooy la li ma xam daal ci parti. parti da ngay am candidat. wala amoo candidat te yéen ñëpp dégg ngeen ne PDS am na candidat parti boobu dama ko respecté torop ndax seen secteur général nekk naa moom près de ans fukki at presque wante nag ci foofu la yem. loolu nag mu nekk ci jamono ji nga xamante ne sax fu mu toll nii ku jëkki ñu ngay wéy di weddi li ñu tuddee parrainage maanaam bàyyale ci élection ñu dëgmal moom mi la di xamle dana respecté loi bi. man nag maa toog xool situation wu Sénégal ci la loi c'est le parrainage nous irons au parrainage ginnaaw bu ñu ko laajee moom mi ban xalaat la am ci wàllum jafe-jafe yi sénégalais yi dund. man de tiit naa ci Sénégal. économie nu ñu yore réew nu ñu yore alalu réew nu ñu yore politique réew. constitution yi di ko soppi di soppiwaat. élection wu 2019 yi bu ñu jàllee élection boobu te redressé wu ñu yenn yi. laata loolu ay weer moo dox ci sunu diggante ak élection présidentielle bu 2019 Cheikh Hadjibou Soumaré mi fi nekk premier ministre ba Abdoulaye Wade daal di xamle mbébétam mooy fexe ba yóbbu réew mi ci kanam. gannaaw ba ñu ko seetalee ba noppi génne ko ci kaso bi imam Ndaw ànd ak délégation bu takk ñëw fii ci makkaanu groupe Walfadjri ngir seet si El Hadji Sidi Lamine Niass loolu nag lam ci jublu woon moo doonoon delloo ko njukkal sant ko gërëm ko ci taxawaayam ba tey ji dëgg gi mën a feeñ Mamou Diaby Gassama Mami Kanté imam Alioune Badara Ndao niki di ber daa ñëwoon gërëm ak cant PDG groupe Walfadjri Sidi Lamine Niass taxaw bu rafet bi mu amoon ci jamono ba nga xamante ne caabi daka féete woon la ca jiitu mooy feeñal sunu cant ci borom bi tabaraka wa taala félicité sunu sunu mag mbir yi ñu suñ borom subhanahu wa taala mu di nattu boo ñu fa jiitu bi ñu ci duggee taxawaay bii bu ci am bu fii lay njëkk a teg a dem sama kër doon na diis ci moom Sidi Lamine Niass mi bu baax ñu demoon ba ca sotti tega mu mel neneen mbir nag ba dem ba ca borom nga ne ko félicitation. imaam Alioune Batra Ndao ku ñuy bàkku la waaye tamit nu ñu seetalee deram li ñu mel ndam la ci umma islamique waaye tamit dana tax islam gën a am doole. ndam la tey ci l'islam. su ñëwoon tey gis contraire bi. Hmm. li ko noon jullit yëpp ay xat. waaye bim ñëwee itam tey mu set. Hmm. wecc tax ba ilimaan bu nekk da mu minbar mhm. wax fa lépp loo xam ne génnul ci li muy lim doon def moom kon libéré na mbooleem nitu diine yi nga xam ne doon nañ tiit ñu dëkkale leen fuñ dëkkul mhm. il fallait ñu jël ku set ba xam ne ñu set a ngi ci biir mbooloo mi. ñaan sottante ay xalaat kenn ku nekk di wax lu rafet jëmale ko moromam yu nu mel ne meeku nañ ko woon ci bile visite. sunu mag la ju yàgg sunuy wayjur ak ay wayjuram àggoon nañ ci bay alaaji kàbbu bay bay faalum xalifa lañ ko tuddee woon bu ko defee kon suñu yàlla dimbalee moom itam mu meññee foofa suñ borom ndamal ko ci ndam li mu ko jox loolu dañ koy sant yàlla. Cheikh Sidi ñu ngi lay ndamoo umma bi ñu ngi lay ndamoo ñu xam ci moom ak lañ dégg ci moom mm-hmm. engagé wu ci dem ci ba jeex mm-hmm. su meloon neneen comme ni mu ko waxee. Hmm. li ko noonu ñun ñooy njëkk a fay tribune bi loo waxati ñu ne ñu waxoon ngeen ko fi. di sant daal yàlla. Hmm. ak ni ko defee nga xam ne génn na sans rancune. génn na ci amul benn esprit de lenn. Hmm. lu mooy jàpp rek ne natt la. ba pare nag di delluwaat ci mbokk yi delluwaat ci liggéeyam. loolu rek euh, doy na sant yàlla kon daal lu ñu wax rek ci cant lay tàmbale ci cant lay yem. Imam Alioune Badara Ndao ante bu rëy nu mu ñëwee seet si Sidi Lamine Niass ni ki noonu sax yemu fa ndaxte nee na moom ma nga xam ne daa gëmm borom bi subhaanahu wa taala xamoon na ne ni dëgg rek mooy mucc gannaaw waxtaan yi jëflante yi ak ñaani PDG groupe Walfadjri Sidi Lamine Niass yëkkati na ay kaddu daal di ko jox ka nga xamante ne mooy imaam Alioune Badara taw moom imaam sax ñu koy xaarandi ca kaw Kaolack niki altine ñaar fukki fànn ak ñett ci weex wi bët nag sebbiwaat na fu la ci diwaanu Louga loolu nag jural am mbégte gu rëy ñi nga xam ne ay béykat lañu ngir ragal nag li leen daloon daaw dal leen ak picc moo tax ñu bari ci béykat yi nga xam ne nii jàlloon la ñu sant soobu ci mbayub ñebe bile Omar Kayri reportage. gannaaw ba ñu toogee lu toll ci weer taw amul ndox mi nag daal di sotteekuwaat ci région bu Louga àllarba yi ñu génn ñaareelu taw bi daal di juddalaat yaakaar ci baykatu njàmbur yi ñu mën ko seetlu tamit ci kàbbu ñas mi ñu fekk ci toolam muy ji ñebe. fii dama fi daroon ji dugub boo gisee lii ma ko ci dolli nii dugub ji weex ji dama calculer ma ne su ma fi defee dugub xale yi na ma papa boo ko fi dee sori na te daaw li ñu daj fii ci dàq picc yi moo tax ma ne kon nan xool. comme jinaa fi ñebe ma ne ko leen kon nañ ko complété nañ ko complété ñebe. fi nag euh, en général li ñuy bay mooy warite mooy gerte ñebe dugub. côté bi ñoom bariwuñ lañ ba daaw bay naa fole dugub yu bari mais ren defuma ko ndax picc ñoo ko dangu daaw. gannaaw toogaay bu yàgg bi ñu toog taw amul gàncax gi nga xam ne mi ngi doon doog di jóg taxul mu yàq ci lu bari. li ci xawoon a ñuul rek moo di yenn gàncax yi nga xam ni commencé woon nañ laax tuuti. indi tey biig bi biig bi mu fanaanee tey. bi ñu fanaanee taw di moins dañ ci sant bu baax ndax dañu yàkkaamti woon ndox mi ndax comme bi ñu jiyee boo demoon ba fee tey tool bee ñebe ji lu bari lakk na ndax ngelaw li fi jaaroon barki démb lu bari lakk na tool bee rek lu bari dafa lakk nga xam ne amatoon trois quatre jours mu tawul rek presque maanaam lépp day yàqu. gerte gi moom gaa moom ji nañ ko depuis. non ndax jotul woon a jotul woon a maran mun jotee ci lii dañuy gën a sant dana yaakaar mu gën a jëm mu gën a jëm kanam donc lii bu ñu amee fi mu ne lii gàncax ga am rek pour le moment fii un mois mën a tëdd euh, kii bi. Louga nag mooy région bu njëkk buy produire ñebe fii ci Sénégal ci atum 2017 lu ëpp téeméeri junni hectares yu ñebe la ñu bayoon ci région bi rendement bi nekkoon juróomi téeméeri kilogramme par hectare daaw tamit lu ëpp 100 tonnes ci ñebe la réew mi produiroon waaye daanaka 67000 tonnes yi Louga la jóge mu mel ni mbay mi ni bay ñebbe ci réew mi boo jëlee fukk ba ak benn Louga la jóge Oumar Kayre Louga Walfadjri jërëjëf mbokk yi ñu ñëw ak yéen ci xibaaru euh, tàggat yaram ak euh, football euh, Coupe d'Afrique des Nations junior mooy U20 moins de vingt ans Euh, am euh, qualifié yi nag xam nañu juróom-ñaar yi nga xam ne dinañu dem euh, Niger muy Afrique du Sud Nigéria Sénégal Burkina Burundi ak Mali Niger mooy dalal ganni yi ci deux mille dix-neuf moom sax fu mu nekk nii. Euh, moom mi euh, jéewul euh, match éliminatoire waaye nag des na benn équipe qualifiée dinañ ko xam diggante Bénin ak Ghana ñoom ñaar dinañu am jongante le 21 août la ñuy amal seen jongante sunu gaynde yi gis ngeen leen ñeenti bal ci benn la ñu daan ci Ndakaaru ca match aller ba euh, ndam demul ndam ku nekk dugaloon ñaari bal fu mu nekk ni sunu euh, Sénégal nag euh, ci wàllu junior bi mooy ñetteeli yoon muy qualifié li nga xam ne mooy Coupe d'Afrique te Sénégal mooy vice champion li ci am nag xibaar bi ci am nag moom mooy Zambie bi nga xam ne moom mooy Zambie mii nga xam ne moom mooy champion d'Afrique du ñëw du défendre titre dañ ko éliminé Burundi moo ko éliminé daan ko ñetti bal ci dara gannaaw bi mu euh, daane Burundi benn bal ci dara ca euh, match euh, aller boobule. ñu dem ci wàllu athlétisme championnat national yi amaloon nañ ko ci stade Léopold Senghor amoon nag fu mu nekk nii ay athlètes yu takku yu ñëwoon bokk ci jongante yooyu waaye nag gis nañu jongante yooyu gannaaw bi mu amee mbooloo. waa am euh, gis nañ ci nag li nga xam ne euh, jaaxal na lool mooy ñi nga xam ne dañuy euh, def lancé disk ñoom nag a ah, dañ doon ñaxtu ñu ànd ci ak Nafi Amar Fall ñu jàppoon ko ñaar fukki fan jàpp ñaar fukki fan ak ñaar ci weerub juillet championnat nationaux yi ñeel wàllum athlétisme ca mujjantal gi ci ñaari fan lañ ko amalee li ni mel daal di gën a firndeel ni Diop war nañ ko defar ci bu gaaw li ci xaw a métti mooy démb dañu compétir bu une heure du matin parce que vendredi journée bu ñu programmé woon la te dañ ko fer dañ fermé woon stade pour permettre euh, match de football bu fi am at joueurs yi entraîné. ndax Iba Mar moom ku ko xam xam ne athlétisme moo taxoon mu ñu defar ko stade athlétisme la donc vraiment soxla nañ defaraat tant temps bi. pour athlètes di fa di fa daw. lu tolloog ñetti téeméeri athlètes bokk nañ ci jongante bi waaye ci wàllum organisation bi ñëpp kontaanuñu. dañu naroon boycott parce que amuñu woon disque mais à la fin am nañ disque. <laughs> bu football ayee daa on nommé d'or football ayee moom l'athlétisme d'or di respecté ñu lance en général waaw ñun loolu lañ gis ñun lay lancé gisuñu ñu respecté nañu jox nañu gëdd vraiment lancé. te ñun athlétisme ci la ñu bokk waaw ci la ñu bokk am nañ ci cër am nañ ci wàll donc dañ ko war a jëfee daal imagine a ngay dem di lancer plein air ci biti bu dul compétition fii doo fi sañoo fi sax jege bon tout tu es dehors. moonte ki jiite fédération sénégalaise bu athlétisme rafetlu na anam yi xamante jongante bi tëddee ko. compétition bi jaar na si yoon parce que xale yi ñëw nañ dalal nañ ci jàmm daaw nañ ci jàmm amul kenn ku gaañu liñ ci namoon yëpp sotti na. fii ci Sénégal saison athlétisme bi tëj nañ ko jamono gi fédération bi. mooy jongante yi ci diwaanub Afrique bi balaay loolu nag faaw ñu tàggat ndaw yi na xamante jamono gi lu bëri manqué na leen rawatina piste bu ñuy tàggatoo. jërëjëf na fi Amar Fall waaye dañuy des ba léegi ci athlétisme championnat national loolu kii di na fi Amar Fall tàllal na micro kii di directeur technique national bi Pape Amadou juuf waaye nag Pape Amadou juuf moom euh, nee na Sénégal dina bokk ci euh, championnat d'Afrique yi di am fële ca Nigéria ci mois d'août te Sénégal dina euh, yóbbu équipe bu takku équipe bu baax ñu déglu ki nga xam ne mooy Pape Amadou Diouf ci micro Nafi Amar Fall. un sentiment de satisfaction au regard euh, de la participation. parce que je pense que depuis quelques années on xoolee ci ñi nga xam te ni ñoo teew am nañ ci mbégte bu baax tax région yëpp wuyu si nañu li jogante yi di gën dem gis nañu athlètes yu baax yoo xam te ni ñi ngi soqeekoo ci région yi ay ndawi athlètes itam wane nañ seen bopp tey ji mën nañ ci jàpp ku mel ni comme Ahmad Faye di jogante foofu ci ISO ci lii di 100 mètres Henri Bandiaki ak euh, Moulay Sonko ñu def sax ay performance maanaam ñu mën a tëkkaleeg seen xarañte ak li nga xamante ne moom la ñuy def sax ci dendu sur okay. qui est de l'USO, qui a fait un bond de quinze mètres 42 au triple saut. Mais aussi, euh, on a Henri Bandiaki et Moulay Sonko qui nous ont vraiment avec un bon 100 mètres. Euh, digne du niveau africain. lu jëm ci mbirum compétition continentale yi li ñu war a jogante ci euh, bitim réew ñun dañoo yore benn discipline athlétisme boo xam te ne dañ koy euh, defaraat tey xëy na dina doon suñu dem bu njëkk pour yenn athlètes yi waaye bu ñu gént dañ fee dem pour jéem a am li nga xam te ni moom moo di ay raaya mu doon loo xam te ni expérience lay doon sélection bi maanaam dawkat yi nga xam te ni ñoom la ñu jël ñu leen di duppee athlète pare nañ li des rek moo di gën leen a waajalaat. gagner Euh, sur place, mais plutôt pour euh, apprendre la compétition à nos jeunes athlètes qui, dans quelques années, vraiment pourront vraiment distribuer ces médailles. Les médailles, c'est vraiment miraculeux parce qu'il n'y euh, a que des athlètes qui n'ont jamais participé au championnat d'Afrique et qui y vont pour la première fois. La sélection est déjà prête et il s'agit maintenant juste de la peaufiner au regard des... jërëjëf Pape Amadou Diouf di directeur technique national bu athlétisme bu Sénégal jóge ci athlétisme dem ca Euh, basket ba basket ba tamit euh, gannaaw euh, bu ñu joué huitième journée bi championnat national playoff deuxième phase bi ci wàllu góor yi résultat yi la joxe ASFA moom UGB daka daan 76 duc dafa lajja Louga basket club moo ko daan 69 à 51 douane moo daan SLBC 63 59 kii di USO daan saltigué 52 à 50 léegi nag gannaaw résultat yooyu xam nañu léegi kan ak kan ñooy daje demi-finale pour titre bi ASFA mooy daje ak euh, du ASFA du ASFA du ASFA euh, pour ngeen rectifier ko douane mooy daje ak UGB SN Saint-Louis Basket Club daje ak Duc ASFA toog na ASFA qualifié wul kon nag ngeen jéggal ñu ci euh, maanaam erreur boobu euh, am ci euh, loolu le donc nu ngeen ko gisee loolu moom mooy erreur bi ci amoon kon nag mbokk yi looloo fi rusoon ci wàllu tàggat yaram dalleen ak jàmm Walf Quotidien xëy dalal ganam di béy di añ njiital CNP waxtaan guy yaatu moom la yéene kaa bi seq ak njiital conseil national du patronat ay kàddoom ci Walf Quotidien béy di añ jot na fësal koppar yu takku yi nguur gi ameel ay entreprise yu CNP bor gaa ngi toll ci téeméeri milliards ak juróom fukk leneen ci ay kàddoom ci biir yéene kaa bi moom njiital conseil national añ ne bu ñu joxoñ rekk koppar gi bawoo ca bitim réew béy di añ jot na ñaawlu nuñ koy doxalee ci biir yéenekaay bi béy di añ jot na fàttali ne balaa ngay taxawal dara rawatina entreprise faw jàmm taxaw ba noppi lu jëm ci élection présidentielle ne réewum Sénégal saa su ne baaxoon na élection yu bari coow Dakar Times di ñu xamal ne ci jamono ji coow laa ngi ne cobboy ci fichier électoral gi Union européenne jot na cee def gëstu bu yàttu gis ne ba tey dalagul xel ne Sénégal bu deful ndànk la xew ca Mali fichier électoral ga na mu jaxasoo ca Mali loolee mun naa Dakar Times ne ci bile fichier électoral bu Sénégal ñii di ay experts Union européenne jot nañoo ñaawlu njuuj njaaj gi am ci certificat de résidence yi Union européenne ñaawlu tuxal gañu tuxal saay sunu ne yi Union européenne daal di sàkku ci nguurug Sénégal ngir ñu càmbaraate article L31 bu